waaw sëñ falu xam naa dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sëñ aatu mi nga xam ne moo fi moo fi bàyyi ko ah, dëgg yàlla xam naa ne du rëccu lu doon sonne ngir sëriñ bi sëñ bi jaraloon na ko lool ku rëy pas-pas la ku rëy ngëm la ku amuk dogu la ku bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa la te nit ku wàcce boppam la ci liggéeyal sëriñ bi man nag naka jekk xam naa loolu ci moom waaye jamono yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi séddee loolu séddale loo sëriñ Mustahim xari tabaski yi ya féete woon ca moom ci laa jàngat ci diggante ba ma fa nekk ak sëñ Moustahin ci laa jàngat ci aato njàngat yu amaam solo mooy nit ku disponible ku disponible la nit ku jaxasoog ñi mu yilif la ki ci gën a doon gone ba ci ki ci gën a mage mel na ne ñim yilif ñeme nañ ko maanaam gone yi ña gone ñeme nañ ko ña mag waxaale wu leen te nit ku xam teraanga la nit ku yaatu la ndax diggante boobu ñu fay yendu rek teraanga ju ne dana ko fa def waaye di baagante ci gétt yi woyof toy ba waxtu woowu boo ko fekkoo boo ko fekkee foofu suñ la newul moo nekk nii doo ko mën a xam bu fekkee fekkul woon nga xam ko kon nag lii dal ci kawam murit yëpp yëpp a ko yëgandoo boo gisee ni mu demee danga xam ne murit bu ne am na loo jàpp ci moom murit bu ne am na loo yëg ci moom ah yàlla na ko sunu boroom jéggal ay rëcc rëccam te dajale ko sëñ mi mu doon liggéeyal te loolu rafet nañ ci njort ndax ku gis jataayu sëñ Muntaxaa bi nam fa yendoo ba guddi danga xam ne am na ku mu ñàkk ku sori ci moom am na ku mu ñàkk ku sori ku ci moom looloo tax nag ñépp yëgandoo ko ndax sëñ mi mu doon liggéeyale tax li dal ci kawam bi mu dalee ci kawam murid yi yëg sëñ bi ñoom ñëpp yëgandoo nañ lii sori na lool ci moom yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana ja gën a àjjana ya gën a kawe bi jaayi xaadimi rasuul yi waaye ku am tawfeex la tawfeex la joo xam tawfeexam dafa mel ne sëñ Muntaxa ko seere ndax ba mu àndeek moom wala ba mu àndeek ñoom di liggéey ba waxtu wi ba ba fekke ak wàccam seereel ko li mu ko seereel taxawu ko taxawaay bi mu ko taxawu moo lay won ne sëñ aato ku am ndimbal la ku am taw tawféex la yàlla na nu yàlla tas ci barkeem bi jaayi xaadimi rasuuli te teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi te mottalil ko ay yéeneem yi mu yóbbaale yéene yi mu yóbbaale ci liggéeyal sëñ Tuubaa ni ko sëñ Muntaxa waxee ak jëf yam jotoon a jëfal sëriñ bi te sëñ bi gërëmal ko ko njëkk mu di ko fekki loolu lépp yàlla na daje ak moom ñu ko wuutu ci yan bi itam yàlla na sunu borom woyefal yan bi ci seen kaw na doon yan bu leen tiim sëñ bi téyel leen ko ba ñu àggale ko fu kawe njort asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu